ni mu koy defee at mu ne bu Achoura ñëwee honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga daal di lewetal ay nag def ko ay sàmm jëbbal ko askan wi nga xam ni ñoo nekk Daaru Salaam Polle ak ñenn ci Touba honorable député di wax ne lii daal dafay delloo njukkal président Macky Sall ak soxnaam Mariam Faye dañu sant yàlla bi ñu yàlla mayee euh, ñu amuk fekke akuk wér ñu ñëw fii tey euh, niñ ko daan defe rek dimbali nit ñi ci wàllu tamxarit gi ñu ne nañ wut euh, suñu yéene nag moo doonoon bu ñu amoon téeméeri nag it def ko ndax nit ñi jàppale leen jàpp nañ ne soxla nañ ko na tey yéene ko gisandoo wax dëgg yàlla lu mu gàtt gàtt fii rek ci tund wi def nañ fi ñaari nag yoo xam ne dañ koo jël pour dimbalee ko fii ci tund yi ak woo xam ne dañ ko defee Touba pour dimbale ko ña fa nekk muy ñett nag yoo xam ne dañ koo dimbalee askan wi loolu nag ñu ngi ci sant yàlla. sant ci Serigne Touba waaye nag di wax ne peccum liir bu neexee yaay jaay jàpp ca mag ya ñuy sant président de la république di sant première dame mi nga xam ne ci moom la ñu roye yu mel ni ak seenu jàppandal ndax jàpp jàppale nañu ci bu baax a baax a baax a baax ndax lu baax rek am solo moo tax ñun bu egsee dañu wax ne lu baax la nañ ko jël delloo ji ko askan wi kon nag ñu ci sant bu baax di fas yéene di fedd di suñu kóllëre ak sunu taxawaay ci président de la république ak li nga xam ne mooy sunu warugar ci kanamam ak ci ginnaaw ñuy fàttali ne jàppale gi mu jàppale Touba di ko jàppale Sénégal jàpp waaye ci biir Touba taxawaay bi mu taxaw ñëpp ko gisandoo ndax li mu fi def ci wàllu assendissement def ko ci wàllu courant ba fii may wax yow nii euh, Touba fi mu toll nii ñu ngi fi monte lampe der yoo xam ne lampe mbedd la yoo xam ne ñaari junni yoo xam ne président de la République moo ko def ci taxawaayam ak ci wàllu tali yi ak yeneen yoo xam ne mi ngi koy jàppale Touba donte Touba mus gañe gi jafe na ko parce que 2012 ba tey gañe ko benn yoon la ko fi gañe mais teewul mi ngi ciy def li mu war a def kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm te xam le ne lim fi def sëñ Touba rek a tax mais bu doon ñun kese du ko def sëriñ bi la ak sëñ Touba. mu ngi jàppale sëriñ bi di taxawu sëriñ bi di taxawu sëriñ Tuubaa ci dëkk bi ñu ngi ko ci sant di ko gërëm. ndaje bi amee woon ci Daaru Salaam Polle jëf ji jur mbégte ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jot xéewal yi Ibrahima Ndiaye wax ci seen kàddu di wax ne li daal du gulet. ndax Abdoulaye Seck li ma xam ne waajuram ci lu yàgg mu ñëw fële ànd ga mbaa mburu ko raw moo tax fi mu ne nii dama ko ref rak def ko doomu ndey def ko xarit. du saaxal ba ba dëgg des sama nit la ca ba muy dugg ci ci politique ba léegi man ak man ak moom a ah, ma saar mais ñoo ngi koy sant bu baax ndax ku baax la ci tund wi tund wi mu sanc nii li mu fi def sa xamu ko nit ku baax la koo xam ne war na jëmmi Sëñ Tuubaa du taxawaayam bii dama xam ne baax na ndax dama ko yàgg a xam jëf ji mu jëf fii nag ci tund wi sak at nii lay def sak tam xarit day defar nag ñëpp mu jox leen bu pol séeréer naar lépp lay joxe moom moom comme joxekat la moom loolu moom ku leer ku leer na ñoo ngi koy sant nag di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér te ndombam bi mu yore nii yal na ko yàlla yàggal ci loxoom ndax tund wi kat jariñ leen de ku naax fekkut xam ne jariñ na leen noo koy gërëm di ko sant xamal ko ne tund wi moom moom moom am na fi mu fu taxaw woo nañu fii tool boo xam ne noo koy koy beral suñ mu Muntaxa lépp ci moom la kaa ñu defaral liggéeyal sëñ Tuuba ci moom rek laa ko njëkk dégg ñu tam bu ñu mënee bu ñu mën noo ngi ci noo ngi mën sax noo koy gërëm di ko sant.